man dal ki xam fa la ko wara a en fait depuis le jour mu feñu defaral ñu suñu exercice ba tay fu ma sama xel bi day nekk ci mom yow lan la loy sa ngeem dama tiit ci ëlëg Sénégal na ñu wara fañ ñu feebar te ñoo ñoo feebar ñu wara tek ci yoon ñoo ñoo wacc yoon. sa ko fi sa ngam ngam bay rek di nga mësa a ci kaw ngam ngam ak patience te itam bu xanté asman jarul ku nek dur sa borom bag Bina suma xel mo nek ci suma yaay quoi parce que hier la nuit ma ngi deg muy wax ak sam pap sam pap di ko traiter n'importe quel mot wax ju ñaaw jo xalaat rek sam pap yëkkati ko ci sama kaw yaay lan la badara ah badara li nga andi day neex na de bu bëggoon na xam foko jele de badara mba fekk ko yëfu jamon nga jël ko man dama amone ben scenario bo xam dama la ko bëggona jox ba scenario la dafa am ben paa man sama yaay luma def ba taxna na duma ko bëgg tudd mako xam ak yalla genn ci débat bobu nak ferraille yi ngay wër lan nga koy doyé eh? ferraille de dama koy jaay ngir am luma yobbu kër ga dimbali sama yaay ndax man rek la am comme dom te bu xeyé lek ak nan yépp ci man la ko nit est-ce que di nga jur sa dom ba paré diko bay te épi sax man fa bi est ce que mo jur. duma entrer nak mais billahi ça me fait mal ma fek la ngay fóot puisque j'aimerais bien avoir un grand frère comme yow. Zara la vie est ainsi jamono toll fofu rek. ton fils loolu du gatché au contraire ndam la wara nek nekk da nga daan genn dem mu neex lolou nga indi defar bu mu baax du deug tay bo demee mu dëgg. C'est le destin. Tu ne peux rien du tout. À beau faire, tu n'auras rien du tout. Même si tu remets terre et ciel, tu ne vas rien amener. nu nous le téléfilm ça, tu tudd ça Inconnu. Waouh..! Ça Inconnu. Balara.. en fait yow pare nga pour dellu l'école? pare naa pour à l'école ça. mais yow kenn de la nettali situation kër gi xam la lu ñuy dund xam nga li fi xew xam nga ne itam depuis paa bi mu génnee àdduna ba léegi yoruñu lu ñu dundalee suñu bopp chaque jour dañuy taaba taaba. je commence à comprendre que coach avait raison de dire qu'en Afrique un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle. ku bëri xam-xam ngi noonu. mais je suis pas triste par tes mots waaye damay xalaat sa avenir suba Sénégal suba nan nga ko war a dundee. yalla rek a xam suba suba yàlla te itam man waajur rek tax may son di jay feray c'est vrai à chaque fois say moo day triste waaye ndax mën naa xam nan nga tudd ak fan nga dëkk. Badara Gueye laa tudd sant doxandéem laa dëkk kër ko wër yëpp benn kër rek a fa nekk kër gu xeebu kër googu laa dëkk